ba tax na tey ñi daal di dalal euh, Serigne Cheikhou Tidiane moom tam mu daal di ñu wax euh, euh, nan la gisee bàyyi bi nga xamante ni moom lañu bàyyi sëriñ Khadim Gueye balaa loolu dañ koy jox kàddu gi bu ko defee rek mu daal di nuyoog askan wi asalaamaaleykum Serigne Cheikhou Tidiane Ndiaye. waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Aqibou ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax di la ndokkeel di la ñaanal yàlla bu baax. di nuyu mbollem ñi nga xamne ñom lañ fekk ci kër gi ak sunu caméraman bi ñu ngi koy ndokkeel di sant yàlla bu baax di wax alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala mawlaaya rasulillah sallallahu alayhi wasallam rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ñi ngi nuyu ñep di leen ziyara bu baax di leen ndokkeel di wax ne bismillah ma sha allah macha allah ñoo lay uh, sante di la gërëm yow aussi uh, di rafetlu sa téway ci suñu site internet bi comme niñ leen ko diggé won waxon nañ leen ne dinañ leen topal li nga xamanteni ni di xew-xewu daara bi amone fessé jaañ ba taxna na démb dégg nañ ña bay nañ ki nga xamanteni mom modi di Serigne Khadim euh nan ngeen dundé bay bi nga xamanteni mom lañu bay ñu bàyyi Serigne Khadim Gueye. jërëjëf uh, Cheikh Akhim xanaa di sante yalla rek di wax euh alquran euh, moo moo am ndam waaw ah, ndax dañuy wax ne toujours alquran képp koo xam ne da ci nekk la yàlla waxoon rek moo ci feeñ inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la waaw ah, yàlla na comme moo wàccee quran di ko sàmmal boppam xam nañ ne fuñ ci egg rek euh, la bu de rek alquran mooy mooy gañe mooy jël ndam li moo tax démb wax dëgg yàlla Euh, ñun ñëpp sant nañ yàlla euh, am nañ kontaan trop ci mbokk bi nga xam ne jàngalekatu alquran la euh, yore daara wax dëgg yàlla ñu nekkoon ci jafe-jafe yooyu suñ xëyee rek ñu ne bàyyi nañ ko libéré nañ ko mu dem ko dañuy sant yàlla bu baax dañuy xam ne loolu lañ doon xaar tamit ci nguur waaw dëgg-dëgg loolu lañ doon xaar ci moom ñun tamit kontaan nañ trop. Hmm. Euh, macha allah euh, deglu nañ li nga xamanteni mom modi di première question bi nga jox nañ ci réponse bi nga xamanteni euh am nañ yaakar né contane euh, ngeen bu baaxa a baax donc non ngeen dundé li nga xamanteni mom modi libération Serigne Khadim gay tay nak yeen jangat ngeen ci am yen sëriñu daara yi. waaw gur gur lu rek gur gur lu rek té xamné ne jangalé ko dafa metti jang ko metti na mais jangalé ko metti na leneen li rek lu ñuy ñaan ngor di ko ñaan mboolem koo xam ne yaa ngi wax ci daara rek nga bàyyi xel bu baax ne alxuraan jàngale ko dafa métti jàngale ko yombul benn yoon euh, boo gisee alquran tey ànd ak coono yu mu àndal loolu mun na yaatu ndax ku xam islaam fa mu jógee xam njiitu lislaam li mu daj euh, wax dëgg yàlla balaa muy mën a jotale quran ji ñu mën ko bëgg di ko jàng jàngale ko ku ne xam na ne loolu dafa métti dëgg-dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën ci mboolem nit ñi. bi ko yàlla yónnee mënoon na ko yombalal lépp waaye gis nga daf ko ko jafeel euh, boo xoolee sax yàlla si boppam tabaaraka wa taala euh, dafay jàngal yonent bi ci alquran lu bari bari bari bari daf koy jàngal lu bari ci alquran te loolu yëpp jàngal yi mu doon jàngal yonent bi ñun ñoo taxoon dëgg-dëgg ñun ñoo taxoon mu doon ko mu doon mu doon jàngale njàngale mu mel noonu euh, boo boo xoolee rek bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés jot na. mu mu mu doxalanteeg euh, noon yi pour jëflanteeg ñoom wala lépp waaye gis nga daf ko ko jëfeel euh, boo xoolee sax yàlla si boppam tabaraka wa taala euh, dafay jàngal yonent bi ci alquran lu bari bari bari bari daf koy jàngal lu bari ci alquran te loolu yëpp jàngal yi mu doon jàngal yonent bi ñun ñoo taxoon dëgg-dëgg ñun ñoo taxoon mu doon ko mu doon mu doon jàngale njàngale mu mel noonu boo boo xoolee rek bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés jot na mu mu mu dëxalanteeg euh, noon yi pour jëflanteeg ñoom ci ay li nga xam ne euh, ay euh, moojisa la mu war ko def ci seen kanam ndax xottil weer wi solo fenkuloo jant bi fekk soloon na loolu yëpp nga di ko wax bàyyi ñas koy jàngale moo boo xoolee loolu tey yenent bi joxeek ñoom rende mais gis nga bi nga xamee ne sottiwul yàlla ci boppam dafa yónnee yeneen dafa wàccee laaya alxuraan yuy dëggal loolu dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam sa so namati dara pour def ko euleuk nang ci bolé insha allah wala taquluna lisayni failun zalika xaddan ila an yasa allah kon nga xamne islam jël benam dafa métti ku xam nak islam islam jël benam dafa métti ba legi ni ni may wax ak yow lol moy dal nit ñi nga xamne ño jàngale ci daara yi motax jàngale alquran lu métti la motax man damay ñaan nguur mu bàyyi xel bu baax ci lolou di ñaan mboolem ñi nga xam ne dañuy wax ci daara ñu bàyyi xel bu baax ci loolu te xam ne daara mënta em ak beneen yar yaru daara emul ak beneen yar dëgg-dëgg ni ñu yaree ci daara loolu leneen beneen yar la beneen yar la si àq ba loolu ku dem ci daara nga dund daara waxuma nag koo xam ne dafa def benn vacance ci daara ne man jaar naa daara déedéet waxuma boobu dem ci daara dund daara xam daara kooku laay wax kook moom boo ko laajoon luy daara rek dina la ko wax amul benn werante moo tax ñun dañuy ñaan nguur daal mu. bàyyi ñu xel xam ne yaru daara bokkul ak beneen yar. Euh, macha allah Serigne Cheikh Ndiaye euh, ñoo ngi kontaan bu baax a baax di la dalal ci suñu site internet bii di 3w point seen kaddu point sn. Euh, comme niñ leen ko diggee lépp loo xamante ne actualité la duñ ci bàyyi suñuy internautes di musa wet te et ñoo ngi rafetlu bu baax a baax a baax suñuy internet ndaxte gis nañ ne abone yi ñoo ngi yokku loolu la ñuy xaar si ñoom euh, ñoo ngi euh, kontaan di fi dalal sëriñu daara bii nii pour mu am suivi ngeen maanaam ñi ñu ñu mottali li nga xamante ne loolu la ñu waxtaan ak yéen sëriñ bi ba xam ndax tey jàpp nañ ne sëriñ daara yi dinañ continuer di enchaîner. maanaam di yeewu xale yi di leen jéng euh, jéng gi nga xamante ne moom moo tax ñi téye woon euh, sëriñu daara bi di Cheikh euh, di di sëriñ Xaadim Guèye fee ca Louga. waaw loolu amul werante ndax xam nga lu tax man damay wax maa ngi koy wax démb rek damay wax ma ne daara li ci gën a bokk na ci li ci gën a sedd mooy jéng xale dañu xamul daara li nekk si biir dëgg-dëgg. kon mën nañ jàpp ne ba léegi dañuy continuer di jéng. waaw parce que xale boo xam ne. Mhm. boo ko yoree dafay daw nanguwul toog ak jàng am na koo xam ne jàng na ci daara ba mokkal jénguñu ko mais dawul deful dara wax dëgg yàlla mais xale boo xam ne saa boo ko indee ci daara ji day daw te yow sëriñ daara bi di nga ci sonn parce que loolu képp ku yor daara xam nga ci dara am na ñoo xam ne seen taalibe bu dawee pour ñu pour ñu gis ko dañ leen ci daj lu nekk danañ ko dugal ci réseaux sociaux yi fu nekk danañ ko déclarer ne dafa dafa réer foofu noonu te ay mbokkam ñu ngi la yaakaar teg ko teg ko say loxo te bëgguñ ci lu mooy jàngalal ma ko Qur'an te yow pare woo pour rey ko parewoo pour noot ko pare pour jaamloo ko da nga pare pour def Alqur'an ci moom kooku nag yar la boo xam ne il faut ñu bàyyi ñu ci ñun ñoo xam nuñ koy defee sëriñu daara moo xam nu mu koy defee il faut ñu bàyyi ñu ci loolu ñu mën a xam nu ñu yaree suñ xale yi xam nga yar xale bi tey jéng ko jafewul. jéng xale. coow li moo rëy rek est-ce que gën a sedd que jéng waa nee naa la ku xam daara ku nekk dinga xam ne jéng bokk na ci li gën a sedd ci daara loolu euh, ñi xam daara xam nañu ko te xam nga boo yaree nit ki ba mu baax bu ëllëgee yow mi ko doon jéng yow mi ko doon sonal yow lay gën a bëgg yow lay gën a respecté yow lay gën a def nit alquran dafay nettali ne innaa nahnu euh, nuhyil mawta bu naktubu maa qaddama wa asaaru wa kulla sayin ahsaynaahu fi imaamin mubin euh, alquran daf ñuy nettalil ne képp koo xam ne dangay euh, ñun yàlla danañ dekkal ñi nga xam ne dañu woon waaye mbooleem azara mbooleem euh, jëf joo xam ne yaa ngi ko fi bàyyi woon si mbaax daf lay topp bu dee mboni daf lay topp waaw ah, xam nga loolu lu leer la boo fexee ba yar xale bi nag ba nga xam ne moom ci boppam du mën a def lu mooy lu baax ci kaw suuf gis nga yow mi ko doon jéng yow daf lay bëgg man man te bari naa ci morom képp koo xam ne moo lay jàngal Qur'an lu mu la mën a def ci daara lu métti métti soo paree ci daara danga koy bëgg kis taalibe di gën a bañ ci daara mooy koo xam ne ba mu ñëwee ci daara pare pour jàngal ko wala danga pare pour raay raayal ko déedéet taalibe daara alxuraan jàng ko amul raay raayal dañ koy jàng normal loolu doy na tegtal rek ñu jàngale ci ku yem ni yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xam ne euh, mooy ki gën ci mbindeef yàlla yëpp. yenent bi bi ko ji laate jibril di ko jàngal laata jibril di ko wax loo euh, iqra yenent bi xaw naa bëgg a dee Baye Niass nee na daan nañ ko poñe ba ay bëtam daf daan bëgg a buqeeku imagine loo xam ne poñe nañ ci yenent bi ba mu egg foofu buñ ci dóoree nit wala ñu jéng si nit loolu jaadu na te loolu yar la rek parce que sa ba bàyyi xale bi la jox doomam na la jàngalal ma ko alquran gënoo ko bëgg doomam gënoo ko bëgg doomam te moom moo eggati doomam jox la ko na la jàngale ma ko te bari na jàngalekat alquran ñi muy jàngal ñoom doomam yaa ci nekk wala ay doomi magam wala ay wóllëre seen baay kon xam na ne moom warta lor ñi te du leen lor dafa bëgg rek njub ci ñoom xam-xam ci ñoom la bëgg ak yar ci ñoom dégg nga ko man am nañ ci xale boo xam ne wax dëgg yàlla euh, euh, kokki bi mu bi mu laata muy dem kokki daara kokki laata mu doon dem daara kokki kenn xamul nu mu meloon nu nekk la meloon mais bi mu eggee kokki ba yaru daara nekk ci moom soo ko gisee da nga koy yërëm parce que bu lay nuyu ñaari loxo la lay nuyoo am na daara yar bu muy def ci moom kon da ngay xam ne ñun li nga xam ne mooy mooy sunu sunu mbir ci daara mooy fexe rek ba xale bi nekk ci am yar am teggin te billaahi la si képp koo xam ne yëg nga ne yaru daara moo nekk ci yow doo def dara lu ñaaw doo ko xalaat sax ba koy def kon daara dafay yar dafay jàngale mbaax rek moo tax mu jóg ñëw ci àdduna pour alquran wax naa la ko keroog sunu sunu kii bale dama la ne alquran mooy message boo xam ne moo jógee ci yàlla pour mu jaarale ko ci yonent bi ci jibril ci yonent bi mu indi ko ci àdduna bi pour mu mën a nekk solution ci waa àdduna ñu mën si doy na rek yow boo déggoon alquran nga xëy ubbi sa téere bu la neexee aaya yi nga dajee rek jàppal ne sa sa sa journée lim lay jàngal jeex na doy rek la moo tax alquran bés boo xëyee rek xam nga boo ko ubbee rek liir ko rek am na lu lay war a jàngal sa journée bi yëpp loolu ku dégg alxuraan war nga koo xam. Euh, jërëjëf euh, Serigne Cheikh Tidiane Ndiaye euh, ba tax na rek tey jii nii gis nañ ne ba ñu jàppee Serigne daara bi di Serigne Khadim Gueye fee ci Louga ñi ñi jug nañ lislaam ñëpp jug nañ daal di mànkoo dem ba ci cour de justice ba sax créé woon fa benn coow boo xamante ni ba jot faa yàqati est-ce que loolu xamee nañ ko ci l'islam ak tamit tey jii nii comme que bàyyi nañ ko. baye bi nga xamantene ni vraiment julit yep rafetlu nañ ko même ku dul julit sax rafetlu nga ko euh, tay ji ni yeen nan ngeen di xaar ci nguur gi euh, ban solution manam tay ji ngeen bëgg rek nguur gi apporter leen ko ba ngeen euh, mëna a nekk ci daara yo xamantene day muccu ayib. loolu moom maa ngi ci massaw kep ko xamne euh bokkoon nga si ciowli parce que du du du du du sunu mbir manam dem ci bërepp di yaq wax deug yalla yaq mom baaxul. Euh, xëy na gars yi meroon nañ ak aal bi fi mu toll woon tamit loolu taxoon sax jëf yu mel noonu am euh, loolu moom ñu ngi ciy masaw ñëpp di wax ne loolu du sunu mbir te te bu mbir mi jeexee rek xam nañ ne loolu du sunu mbir liñ bëggoon rek mooy lii ñu libéré ki nga xam ne mooy sëriñ daara bi nguur gi nag ñun li ñuy xaar ci moom mooy toujours man damay wax ne comme fii Sénégal dañu wax ne xaw ma quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans loolu la ñu wax xaw ma lu ko ëpp voilà wala lu ko manqué lu mu ci manta doon rek ñu xam ne comme ñun ay jullit lañ ay jullit lañ bu baax baax na lool sunu luwaaw réew mi ñu di ci bàyyi xel islaam bu baax a baax a baax a baax lépp luñ ciy oote rek ñu xam islaam lan la ci am ak lan la ciy ñàkk loolu lu am solo la su ko defee bërëbu àtteekaay yi fa ñuy ootee luwaa yi ñu fay teg ñi nga xam ne dañu am tuuti lu ñu xam ci wàllum daara xam nga tey man li ma gën a li ma gën a contre mooy koo xam ne yaa ngi ko dénk wàllum càmm te moom xamul sax luy luy luy càmm mooy ko xam ne yaa ngi ko dénk lu jëm ci wàllum daara te moom dara luy dox ci daara xamu ko moom li mu man déglu naa ci ministre bi wax na ci mu ne moom jaar na daara def na dëgg la mën na nekk dëgg la jaar na daara mais xam nga daara li ma wax léegi la du dem vacances rek de jaar naa fa de waxuma boobu man boobu waxuma ko boobu moom da nga fa jaar loolu dëgg la man dund daara laa wax dund ko xam ko moo tax nguur man man maa ngi koy ñaan. nguur gi maa ngi leen di ñaan ñu xam ne alquran ci boppam mooy téere yàlla boo xam ne ku ko sàmm rek yàlla dina la sàmm ku ko garante yàlla dina la garante nitu alquran yi tamit ku ko sàmm yàlla dina la sàmm ku ko garante yàlla dina la garante léegi nag ñun am na loo xam ne ñun si réew mi lañ bokk du dëgg ay sénégalais lañ di du dëgg fii lañ dëkk fii lañ juddoo jàngale alquran la ñuy def léegi nag nag nguur gi xam ne alquran ci boppam dafa am cër ci àdduna bi dafa am ciir nag rawatina ci Sénégal boo doy na rek tegtal tey Sénégal euh, képp koo xam ne ci ñoom mu ngi soxla réew mi dana dem ci këru diine yi nga xam ne foofu la alxuraan yi samp mbaax tey doy na rek nga dem Touba Mbacke doy na rek nga dem Tivaouane doy na rek nga dem Medina Baye doy na nga dem Layeen doy na fu nekk nga dem fa pour lan pour dagaan ci ñoom ñaan pour dagaan ci ñoom ñu ñaanal la yàlla garantil la ñoom xam nañ ci dara di te ñooñu ñoy ñi nga xamne ne ñooñu nampatal alquran tay ñooñu won yoon wiñ wara jaar pour mëna xam nan lañ def pour mëna a alquran ndax bo démé ci mam borom tuba lépp mu wax na né alquran la amul leneen lu mu bëgg lu dul quran téeréem yi sax nga xamne ne yim daan euh, alquran ci bopam du daan bok ak mom ci ci lal mom du daan tek alquran sax daf daan tek alquran ci lal mom mu tedd ci suuf loolu du normal alquran kon nañ bayyi xel ci koku bo démé fu melni ni laaji malik nii la meloon ci alquran te lii la yaree njabootam boo demee kër Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu nii la mel xale bu ndaw a ndaw a ndaw daf lay téyal alquran di la ko tëri lakkal la arab yoo nga xam ne maara day taale loolu sant yàlla la te àdduna bi yëpp Sénégal lim liggéey ci alquran dafa bari kon il faut ñu bàyyi xel loolu te xam ne suñ kilifa diine yi ñu leen toppeewuñu leen dara ñoom dégguñ sax français dégguñu français dégguñu anglais bàyyi ñas radiyallahu anhu lim def ci àdduna liggéeyam bu rëy bu mu def ci àdduna ku ne xam na ne euh, kii déggutoon euh, lu mooy arab ak olof bi mu doon la bi mu doon làkk kon lan la leen yóbbul njub ak alquran lii rek la leen mën a mën a wan mu couleur boo xam ne bu taaro la muy lislaam ñu mën ko bëgg lu dul lii rek duñ ko duñ ko bëgg comprendre léegi nag lii nag mooy mooy li nga xam ne ñun li ñuy ñaan nguur daal mu bàyyi xel ci loi yi nga xam ne mooy mooy am toujours mu bàyyi xel ne islam dafa am doole ci Sénégal ñu koy cëral bu baax rawatina di diisoo ak borom xam-xam yi di diisoo ñi lépp lu ñuy oote ci jëm ci nguur lu dox ci Sénégal fii nañ ciy diisoo borom xam-xam yi rawatina ñi nga xam ne dañuy yëngu ci alxuraan. en tout cas macha allah euh, kontaan nañ ci. Euh, dalal euh, bi nga xamante nii dalal nañ la ko ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di di la wax na rek sa kàddu gu mujj ci réew mi ak fu mu toll nii. waa réew mi moom ñu gën a góorgóorlu rek en tout cas te xam ne. ñun ñëpp ñoo ko bokk bu kenn yàq mhm. bu kenn tooñ na ñëpp fexe rek nekk ci njub mhm. na ñëpp fexe rek nekk ci mbaax te xam na rek yàlla lim indi mooy dëgg mooy njub te mooy alquran kenn ku nekk rek na fexe nekk ci incha allah euh, te ñu góor góorlu na di ko jàng loolu lu mat a am so lu am solo la ñu góor góorlu di jàng alquran bu baax ku ko mënta jàngee sa doom fexeel mu koy jàng man damay wax toujours alquran ci boppam nu mel ci Sénégal tey nga nekk doomu jullit xam nga démb rek maa ngi jàngale ndeysaan benn téere ñi ma koy jàngal ay xale lañ dama leen jàngal ba mu yàgg ma ne lii dafa nekk farata ci bépp jëmm mu koy jàng alquran ci boppam man am naa ñoo xam ne euh, euh, wax naa leen ne alquran ci boppam bépp solution moom la daf ci aay pour pour régler mboolem situation bu nit nekk léegi nag su ko defee bu kenn tooñ ñu xam ne rek ñun ñëpp ay mbokk lañ ay jullit lañ na képp euh, koo xam ne yaa ngi ci nguur wala yaa ngi ci leneen boo amul sëriñ euh, xaritu sëriñ daara it am nga ci papa wala am nga ci mag am nga ci rakk am nga ci mbokk kon ñun ñëpp ay mbokk lañ Sénégal fu mu toll réewu jàmm la nañ di dal nañ xam ne rek dal rek moo fi war a am ba pare nag ñu ñu ñu am kersa nag ñu am kersa trop ñàkk kersa gi bëri na fi trop wax dëgg yàlla ci ñoo xam ne ñu ngi wax te xamuñ dara li ñuy wax ñu xam loolu Sénégal toll na foo xam ne wallaay lu dul njub ak lu dul mbaax su ko fi waaye defee ci yow rek lay métti ci yow rek lay métti ndax alxuraan na fi nekk sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo fi nekk lii rek moo fi nekk Sénégal lii rek moo fi nekk képp koo xam ne nag leneen nga bëgg a indi lu dul lii si yow lay métti moo tax loolu maa ngi koy moytuloo ñëpp di wax na rek nañ tegu ci yoonu njub ndax lii la sun mag ñi indi fii ci Sénégal lii lañ ñu ooteel lii la ñu jàngal lii la ñu nàmpatal ci lii rek lañ ñu xam programme yi ngay dégg yëpp programme njub la yu baax la alquran la heure bu nekk yaa ngi koy dégg kon ñun suñu garante mooy fexe nekk ci njub suñ garante mooy bëgg alquran suñ garante mooy respecter nit ñi respecter nit ñi nañ leen respecter bu baax sax rawatina loolu nit ñi foo ñu respecter leen bu baax bu kenn tooñ daal ñu xam bu baax li ñu war a def incha allah suñ ko defee yàlla dinañu dimbale ci Sénégal maa ngi ñaan yàlla na yàlla dolli jàmm ci Sénégal yàlla na yàlla dolli jàmm ci Sénégal ni muy tamit. incha allah lépp loo xam ne erreur la ci yal na yàlla génnee ko lu ci jaar yoon yàlla na yàlla yokk ko incha allah def bëggante suñu biir yal yàlla def bëggante suñu biir yal yàlla jàmmal daara yi ak sëriñ daara yi yal na yàlla jàmmal daara yi jàmmal sëriñ daara yi incha allah loolu la ñuy ñaan ñu ngi kontaan ñun tamit wax dëgg yàlla ci euh, seen bi seen kàddu ñun dañ koy seetaan heure bu nekk dañu abone ci seen bi euh, lu ngeen dugal dañ koy liir macha allah loolu sant yàlla la te bu nekk rek ñu ngi leen di bàyyi xel. man maa ngi am yaakaar bu baax ne heure bu nekk rek mbir mi dana dem ca kanam amul benn werante te incha allah ñu ngi leen koy ñaanal yàlla fépp fu lislaam egg yàlla na fa seen seen bi egg fépp foo xam ne islam egg na fa yàlla na seen seen bi ndax liggéey bi ngeen di def rafet na trop wax dëgg yàlla gis nañ ko taaru na trop ku dugg ci internet bi xool rek euh, euh, seeni seeni mbir da ngay xam ne ñii. taxawuñ ñoo ngi dem te da di dem de incha allah. jërëjëf euh, Serigne Cheikh Tidiane Ndiaye euh, kontaan nañ ci yow bu baax a baax a baax si sa disponibilité parce que waxtu bi xat na wante daal di nga sacrifié wu ñëw fi nga xamante ni moom moo ñu moom moo di suñu siège fii ci euh, VDN bi nekk ci côté yëngu leen ñoo ngi jaajëfal ñëpp di leen jox dig daje ba seen beneen actualité bi nga xamante ne nii dinañ leen ko toppal. ca njëlbeen ba fu mu yem en tout cas maa ngi remercier ki nga xamante ni moom moo di le jeune caméraman Saliou ak ki nga xamante ni moom moo yor suñu wàllu wàllum technique di euh, Serigne fàllu ñoo ngi jaajëfal ñëpp di gërëm groupe SBC di gërëm waa Citrams di gërëm euh, tout personnel seen kàddu je vous donne ci seen beneen numéro merci beaucoup